suñu tubaab lépp moom ay mu'jiza la dafa wax ne kulliyati mu'jizatun te aqran waxay la xay laata nga day ko doxee dafa wax ne moom léppi léppam rek maanaam ay mu'jiza la maanaam ay kiimaan la yoo xamante ne bii maanaam suñu moom da ko waajal waajale loolu bis bi nag doon bis boo xamante ne bii bis sant yàlla la mm-hmm. ndax li tax muy sant yàlla mooy sëriñ bi jëm boppam mm-hmm. dafa wax ne li mu am lépp ci la ko suñu borom am lépp mm-hmm. te xam nga sëriñ bi ay mayam moom jëm suñu tuwaat jëm boppam ak ay mayam ndax moom dafa wax ne faaxan maxaar ni am si wal baaxil xadim wa inna ni abdul xadimun ne dayoo bi nga xam ne am na ko ci ci suñu borom nee na ku suñu borom dañ leen xamoo kon ay mayam sax yaakaar naa ne maanaam dañuy tuuti loolu sax ci di ko ci di lim. Mhm. waaye tey bu fekkoon ne xamoon nañ ci tuuti ba di ko ba ba ba lim ko rek. Mhm. Mhm. bu bu bu dee seetee. maanaam ñu ñu ñu ñu ko ci sant ne bii. moo ko fàggul. ko waxee rek. sëñ Tuubaa bi mu gën a na lislaam am lu mu mel. sëñ Moussa Ka wax na ko nee na jamono yi nga xam ne sëñ Touba mi ngi gën lislaam lu tubaab la woon dafa wax na ngir booba loolu soxna yaa ngi kaanu di dagg buur yi seef fa nasaraan ñii def xaal yi ñii ànd ak naan yi nga xam ne jamono yooya lislaam ci jëm boppam sax dafa tumuraanke woon jaaxle ba wax ne lislaam bi yooyu yëpp képp génn gàddaay jëm sawu jant fépp ma ne la mbaay Seex daal di ñaan ci barkeb jiili ne yàlla maay safiyoon kullu jiili maay xaadimu rasul fi suuraani mhm. maay la mu xam ne bi ànd niiraani kon mu doon loo xamante ne bii jamono yooyu lislaam noonu la tumuraakee woon mhm. donte nag Sénégal waaye nag maanaam lislaam dafa am ay école mhm. dafa am école yoo xamante ne bii école boo xamante ne moom la ñuy wax école eh, maanaam maanaam maanaam soufis soufisme muy maanaam tazkiyatu nafsi muy maanaam sellal bakkan yoon boobu nag dafa doon yoon wu tumuraakee wu metti bu jafe jamono yooya mm. maanaam ñu bari xamoon nañ ko waaye jaar ci woon sëriñ bi nag bi mu ñëwee mm-hmm. dafa wax ne lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu mm-hmm. sunnatahul xalaawa ibni ahmadu wax ne man damaa fas yéene yoon wa nga xam ne yonente bi alayhi salaatu salaam moom la xàlli woon mm-hmm. jaanoon ca jaanal ca saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim yoon boobu laa fas yéene yeesal ba ñëpp xam ne yoon waa ngi nii man nag koo xamante ne bii maanaam dafa fekkoon nit boo xam ne borom gëj na fa téeméer waaye nekkoon na fa am mbubb boo xamante ne mbubb maa nga poussière maanaam maanaam kenn bu weexoon sax dem na ba ñuul mu ñëw nag maanaam fukkaat mbubb moom wala ne mbubb mi kat fuutaat ko paase waat ko mm. lemaat ci ko nag war ko nit ñi ne leen mbubb mbubb mi kat mm. na ngeen xam ne la ca taxoon la ca taxoon waaye bokk ci woon waaye li euh, ku sant loo rek mm-hmm. maanaam nit ñëpp moom seen xel ci xam-xam lay def mm-hmm. rawatina ku dëkk ndaam mm-hmm. tey ñun looyal nañu saa saa bu soxla gadeel mooy suñu kon lu ñu doon la mhm. ñaan ba itam suñu waajur bu góor dañoo dañoo juddu fekk ko ci mu newoon ci bu mhm. nekkoon ci ronam ba ba ba noppi ko gis mhm. liñ ci xam lépp tam ci moom lañ ko ko ci moom wax a xam ne tam ñu xam ay ca mbokk yéen a ko déggandoo nee na xam-xam bi lu mu doon la ndax moom ci waa looyeen la bokk te ku ne looyeen ne alxuraan comme Serigne Khadim mu ngi noonu moom day yëngu ci wàllum faj cosaan ak aada ndax tubaab fakkaal la fii ci suñu réew dañ ko fee fekk fi koy bàyyi mu mel ni xaw naa lëmbe dëkk bi ndax euh, liñ naan béy euh, lekkati kese ndaxu ci béy mm. waaye tamit sangoog naan fi lañ ko fekk mm. kon suñ xarit da nga ñuy ñëwal ci garab yi nga xam ne moo fi tegee muy wàllu góor la te mu mm. xaw a bari surtout ci ndaw yi waaw da ngay def soxna si euh, wàllu tële bi moom ñu ko waxee lu maanaam sonal nit ñi daal ñun nag am na ci garab yu bari. Mm-hmm. waaye nag tey garab yi lañ leen di wan nga ne dañ dëpp xam ne boo ci excès rek moom fa ngay yem moom. képp koo sa ci wàllu sëy mm-hmm. ak mën a demee nag. Mm-hmm. a demee nag. maam jokkoo la ñun incha allah bu dëggee mën a demee incha allah ci am maam satisfaction am soobee yàlla. waaw loolu nañ ko garanti. ndax ñun li ñuy def moom dañuy wax ne maanaam maanaam xam nga maanaam Sénégal moom daanaka ñu ko ñi ñi fàcce lu islam bëri na. daa bëri bëri na. bëri nañ leen lool te bëri nañ waa Kalla. Mm-hmm. ay jàmbaar ci. Mm-hmm. waaye ñun kenn daa ko dugg ci Sénégal. Mm-hmm. waaw te loolu ku ko. waaw ay ci kon mbokk ko mu mel ni nag fajum cosaan bi léegi daa réew mi. waaw lëmbe nag def waaye nag ki koy jéem ak ki waaye nag tubaab fa Kalla sëñ Xaadim kon mu wax ci garab boobu nga xam ni mooy garabu ngóor bi képp ku ci bëgg sa kër neex nag mun ngaa ñëw ci sëriñ Xaadim maris daal di ko fi fekk si nag tubaarfakàlla garab gi liggéey na ko ci mucc ayib waaye pot bu weex bi ñu bëggoon a xam garab gi moom